mooy les licences de pêche Sénégal tolloo na foo xamante ni lekk fi ceebu jën bu baax Mm-hmm. amul mais temps yi gis nga actuellement nappkat yi am ne la pêche ça génère plus de six cent mille emplois ñu si bëri bàyyi woon nañ loolu mm-hmm. jël seen gaal jël géej gi dem donc suñu euh, revoir contrat de pêche yooyu gis nga nit ñi moo li commence nañ kontaan te loolu ça génère beaucoup beaucoup d'argent et coté même alimentation côté santé parce que les ressources halieutiques c'est une source protéinique mm-hmm. donc loolu soxla nañ ko baax na baax na si nit su demee nag ba ñu lépp lu baax ñu jox ko tubaab bi donc ça veut que ñun bëggul suñu bopp mu posé la et aussi d'autres actes yoo xamante ni au fur et à mesure. Ah,